di baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dalee na jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. réew mi di président Macky Sall ni ki démb daal dinay tàmbali opération boo mu dippee ñëw jàppale ñi nga xam ne ay néew ñu doole lañ te nekk fépp ci biir réew mi loolu nag muy ay transfert yoo xam ne ay xaalis lay yónnee ngir famille yi nga xam ne dañoo. xaw a néew doole euh, te ñu nekk ci registre national unique bi te ñu daan bénéficier wu ci bourse euh, familiale yi mu toll ci cinq cent quarante deux mille neuf cent cinquante six euh, ñoom la fas yéene yónnee ku nekk quatre vingt mille ngir gën ko mun a jàppale dooleel ko ci jafe-jafe yi ñu am gannaaw ba ñu jógee ci coronavirus bi waaye tamit yokk prix yi nga xam ne am na ci guerre bi am ci diggante Russie ak Ukraine. Euh, moom nag daal dina xam le ne politique bi du dara lu dul dooleel ñenn askan bi ngir ñu xaw a euh, tene waaye tamit wàññi li nga xam ne mooy ndóol bi waaye fexe tamit ba nit ñi euh, mën a daal di def li ñu naan autonome gannaaw loolu ñaadu ci euh, politique ak euh, législative yi Benno Bokk Yaakaar daal dinay tabb euh, ki leen fas yéene jiital fii ci dep fële ci département bu Dakar tur bi nag Alioune Ndoye la nekk ministre de la pêche et de l' économie maritime nga xam ne moom fas yéene na jàkkaarloog ki nga xam ne moom la bokkaloon parti fële ca PS di Barthélémy Dias nga xam ne moom mooy jiite liste départementale Yewwi Askan bi fële ca Dakar. Euh, di fàttali rek na moom Aliou bokk na ci raar maire yi nga xam ne ci jogante yi ñu weesu muy gox goxaati euh, ñenn ci maire yi nga xam ne nekk nañ ci bennoo te daal di gagné fi nga xam ne mooy seen euh, commune. gannaaw loolu ñaar du ci waxtaan bi nga xam ne amoon na ci diggante syndicaliste de la santé yi ak ministère beeg du budget et des finances ñoom nag daal nañ mujjee tënk xaatim. d'accord ci lu toll ci fukki poñ ak juróom-ñaar yoo xam ne daal nañ koy signé loolu nag mu ngi am ci teewaayu. Euh, ministre du travail de la fonction publique de la santé et des finances ñu ngi ko amalee woon fële nag euh, ci ministère des finance ñoom nag syndicaliste daal dinañ félicité bu baax nguur gi rawatina ministre bi ci effort yi nga xam ne euh, daal dinañ koy def ba mun a teg ci table ji ay points yoo xam ne dinañ ci d'accord ngir ko jàmm mun a dellu si foofu ci secteur bi. ñaar ci wàllu tàggat yaram ak euh, ñi nga xam ne coupe du monde ñi ñi dëppee ñoo xam ne seen dégg-dégg neexul te mu nekk équipe nationale euh, du Sénégal ñoom na gannaaw bañ nekkee woon champion d' Afrique daal doon nañ tàmbali niki 30 avril dem trophée mondial bi nga xam ne dañ ko daan wër ñoom nag ci tàmbali match yi daal di nañ am ñaari victoire ak benn ni loolu tax daal di leen dimbale bañ daal di dem quart de finale tese woon nag Allemagne waaye liñ gis mooy Allemagne da leen mujjee dóor gannaaw prolongation ñeent bal ci ñett.